benn dëkk ñaari gaar jaar fi nga xam ne moo di comme ni ko Aïcha Thiam waxee. waaye day ci teg li mu àndal benn dëkk ñaari gaar téeméeri problème juróom-ñaar fukki benk ñenk ak mille jafe-jafe. mais léegi loolu yëpp jeex. <laughs> mais léegi loolu yëpp jeex. waaw kat waaw kat bàyyi ñu waay. léegi loolu yëpp jeex. donc lii ni mel dafa yitteeloon loolu le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndax fa la demoon di fa amal li nga xam moo di conseil des ministres décentralisé ñu daal di ko duppee conseil présidentiel décentralisé lu mu ci mën a doon daal mooy que ni président de la république ni ki dimb jot na fa amal conseil des ministres toll ci ñaar fukki yoo xamante ni jot na ko indi loolee nag mu ko fas yéene tamit weccoo ci lu toll ci 1500 milliards ci suñu ay koppar lépp nag dafa dugg ci secteurs yu bari loolu te wuute mu visé li nga xam moo di wàllum chemin de fer bi nga xam ne yitteel na lool le maire de Thiès docteur Babacar Diop éducation formation dugal na ko ci wàllu kaaraange nga mu di wàllum sécurité économie maritime également mu ngi ci ba ndigi ne jot na caa bokk pétrole ak gaz ba ci li nga xam moo di emploi ndaw ñi ak artisanat maanaam ci a am solo a feebar a dee président de la moom lañ fas yéene maanaam euh, dekk li nga xamante moo di Thiès gën ko jox kanam goo xamante ni gu mucc ayib la ci waxtu wooyu la également aussi jot na caa bokk di discours yu bari lool te wute jot faa génne li ni mel nag indiwaat également ay coow bokk ci ki nga xamante ni mooy Idriss Seck bi ñu jàpp wala di ruumandaat que ne ay kàddu mu doon yëkkati lépp ak li nga xam ne moo di troisième mandat bi également aussi ak doxalin nga xamante ni jot na ko àbbu ci moom bu fekkente ni vidéo bi yemb nañu àndaat Thierno Ba teewlu Ndamal Kajoor dellu siwaat ci plateau bi conclure, Monsieur le Président de la République, d'adresser une prière à votre endroit. Qu'il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques, celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C'est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable. Qu'il continue d'apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d'une telle beauté qu'il n'y aura pas d'autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité. voilà donc mu ngi noonu mu nekkoon kàddu ki nga xam ne moo di président Idrissa Seck euh, mu di kàddu ki nga xam ne moo di Idrissa Seck euh, ñi jàpp ne wala sax nag la mu doon wax mu ñeewal ki nga xam ne moo di président de la république son excellence monsieur Macky Sall dellu si waat nag ci tënk ci kàllaamay Kocc lañ ci mën a jàpp daal mooy que Idrissa Seck ni ki démb bokk na ci koo xamante daal maanaam la mu daan wax ci président Macky la mu a nekk njeexital boo xam ne dafay nga xamante ni euh, jeexal ci ni nga xamante moo gën a rafetee tey jii nag ci wàllum gis-gis ñu bari lool ci ñi nga xamante ni gëstu wala ñuy faral di teewlu jàpp ne Idrissa kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati ni ki démb dafa mel daal kuy annoncé président Macky Sall na ko li nga def déjà doy na kon nag jot na sa yoon nga daal di ko yemale fi mu indi lool li nga xamante daanaka moo nekk ay xalaat yoo xam ne jot na ci wàcc rawatina ay commentaires alors Mouhamed tey ji au delà des décisions yi nga xam ne le président de la jot na koo jël ci Thiès aujourd'hui également aussi par euh, rapport ak kàddu yi mu wax liñ ci mën tënk moom moo di ndax dafa bëgg xamal président que ni que sa sa sa àpp jot na wala nga joxe lenge yi parce que lu ñeel troisième mandat bu fekkee idi foofu lay waxee moom moo di d'accordul ak troisième candidature am par rapport ak présidentielle yu 2024 même bu fekkee indirectement la ko wax je pense bien que ñu mel ni Idrissa Seck tey jii bu ñu bu ñu waxee war nañ war nañ mën a wax parce que bu ñu demee ba wax mburook sow am na lu ko fi jiitu moom moo di sa vision rombul jam ñaajo tey jii vision àgg na ba Thiès moo waral waa dalal ko xayma xaalis takku boo xam ne bu buñ koy xayma tey dafay toll ci 1500 milliards yu mu war a dugal Thiès donc kooku vision àgg na fi nga xam ne moom moo di cees na nekk loo xam ne itam bu mu yem Thiès rek na teqaale ñi nga xam ne ñoom ñoo di village yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci alentouru Thiès parce que buñ naan Thiès Thiès Thiès tey raison de Thiès laa dëkk mais tout le temps li ñuy wax moom moo di xaalis ba fay dugg ñi ci village yi sentiruñu ko lu ñëw cees lañ koy dugal et benn point am na solo lool ci man moom moo di côté hôpital yi même bu fekkee dañuy tabax ay hôpital te nit ñi amuñu lu ñu fa demee dafay gën a compliqué samay mbokk tout le temps dañuy amee problème boobu di décédé c'est parce que dangay dem hôpital boo yorul xaalis doo mun doo wala condition yi nga xamante ne nii moom moo nekk ci hôpital boobu donc nekkul li nga xamante ne nii moom moo di adéqu li adéquate ak li société bi di dund quant waxu waxu sa Seck bi nag war nañ ko mën a jëlee positivement que dafa bëgg lancé message président que war na mën a jeexal mandaam ci jàmm ak salaam mu dem maanaam li ñu ko joxe woon réew mi mu delloowaat noonu réew mi c'est parce que bu loolu amul leneen moom mooy am bu bëggee fippu wala mu bëgg a forcer sénégalais yi que dafay dem ci ci ci présidentielle 2024 yi pour nekk président dafay metti et que bu boobaa réew mi dina yëngu mag mooy wax nag kilifa mooy wax Idrissa Seck mooy wax Idrissa Seck tey jii bu ñu koy xayma ci côté politique euh, bu ñu xoolee présidentielle 2012 ñu bari dañu jàppoo ne que moom ci boppam moom mooy njëkk toog président Macky Sall kon peut-être am na lu mu am expérience boo xamante ne nii mën na ko ko ëppalee ci côté politique même lu ñu koy nangul la et puis bu ñu nee Idi bopp bi dafa baax dafa xam dafa màcc ci côté politique. voilà xam-xamam dafa màcc ci côté politique et puis dafa am ay stratégie yoo xamante ne nii tout le temps da ngay gis que da koy da koy teg et message bi président war na ko mën dégg no au troisième mandat muy idi muy keneen ak keneen donc ñëpp war nañ ko war nañ ko mën bañ kantaan nag ay réalisation yoo xam ne war na ko def c'est à saluer lu lu baax la loo xamante ne nii bu dul Thiès bu jugee Thiès war na ko mën a def ci yeneen raison yi Sénégal gis ci seen bopp mais maa ngi dégg mu ne 2023 ba 2025 donc 2025 <laughs> bi fan fan la ñuy jëmale mille vingt cinq bi moom moom président Macky Sall maanaam ci bilan bi 2023 ba 2025 donc sauté na 2024 tamit dañuy yor seeni xel di xalaat. je pense c'est une continuité peut-être voilà. ça fait allusion à ce que même si un président un autre président arrive pourra continuer cette vision. et cette loolu damay gis ñu bëri loolu du problème. waaw Senghor ba muy wax l'an Dakar sera comme Paris la bàyyi la bàyyi nguur gi. yàgg naa wax ne l'an 2000 Dakar sera comme Paris parce que vision bi mu amoon jàpp na ne. exactement keneen ku mënti ñëw boo ñëwee di nga def fii comme Paris sauf sauf que l'an 2000 Dakar reste comme poubelle. l'an 2000. non non il y a eu des avancées nag quand même. ah ok d'accord. <laughs> ci Paris de. waaw ah, mel na ni fenn ci Paris. ah baax na baax waaw comme vous êtes satisfait kay. Non, pas satisfait. Non, ne n'est pas satisfait, quoi. Mais on reconnaît également que quelque chose a euh, ak Ndamal yi mu yëkki <coughs> ah man de man samay dégg-dégg ak dégg nit ñi moo bokkul. Mhm. waaw man su ma juumul da ne ko. Mhm. def nga fi liggéey bu mucc ay bu rafet door. mais ba décision yi ngay jël. Mhm. ci kanam balaa ngay dem. na rafet dem ba rafet. loolu ko wax noonu. waaw. ah yéen ku leen wax ne pour deux mille vingt bi la. mais ci moment bi mu ko ko waxee la amee. waaw mais waxu ko ab waxu ko date waxu ko jour. Mhm. waxu ko mandat. léegi ñun lu tax ñu bëgg koo appal man looloo ma jaaxal parfois nag ñun dañuy bëgg a dugg ci xelu nit ñi. di di leen waxal. waaye li mu ko wax daal danañ ko balaa ngay def. waaw fexeel décision booy jël. na rafet nga yaatu dënn baale jéggale jéllale. te décision booy jël balaa ngay dem. na na gën a taalal liggéey bi nga fi defagum pour génn bi mën a rafet loolu la ko wax. mais mais loolu kay mën naa nekk naa trente ans dans cinquante ans yàgg naa tenir ay discours Ameth Ndoye si kanamu président te ko wax lii. mosu ko wax na. que bis booy dem joxeel réew mi si jàmm ak salaam. mosoo dégg sa Seck wax ko ko. si non débat est-ce que kon yow yow ngaa déglu Idrissa Seck Idrissa Seck loolu mos a nekk kàddo. bu réew mi tàkk bu réew mi jaxasoo ku yor buy dem na bàyyi. noonu la waxoon Abdoulaye Wade moom la waxoon ni opposition bii nii ñoom Sonko Issa Sall 2019 biñ ne dañuy def recours pour élection yi nanguwu ne daa jaadu moom moo leen woo boo fàttalikoo waxtaan mm-hmm, mm-hmm. ne leen jaru ko nañu bàyyi mu sedd mm-hmm. ndax réew mi bañ a tàkk nekk si jàmm loolu moom discours am la mos a nekk li mu wax Macky Sall nii du lu bees discours là que Idriss Seck a tenu c'est le même discours de Idriss Seck en pour Ablaye Wade y pas de différence et il catégoriquement c'est la même chose. loolu loolu tamit dafay dafay non non dafa daan bële opposant wu Wade la woon. non dafa Babacar bële opposant wu Wade la woon. et bii nag non xaaral ma opposant am allié mm. la. woon. Mm. waaw te comme ah. tu as utilisé le mot catégorique. Ah. il a été ah. wax nga ko ne bés booy bés booy dem ak na rafet ak nangam naam. dana ko da bàyyi nguur gi. merci maa ngi fàttaliku phrase ba si lay indee aaya ba. Mm-hmm. naan ko tuutul mulku man tasaa wa tanziwul mulku mi man tasaa yàllaay joxe nguur mais bu bu paree bu koy jëlaat du ko jël de da koy bif yow yaa ma ne ko Senghor xaaral ma la ne ko Senghor Senghor loolu la xam donte du jullit aaya bii la comprendre moo tax xaarul sax dem jot yàlla di ko bif mu wàcc kook Abdou Diouf Nelson Mandela aaya bii donte du jullit moom la xam moo tax mu teel a wàcc nguur gi yow nag donte yow yaa jullit yaa ko gën a mën a teel a xam wàccal nguur gi jot bokkul yi léegi nag bii yow question bu ma leen posé dafa leer de yaa ngi tontu de. nga ne boobu nga ne lan la woon. opposant opposant bii lan la nga allié looloo tax mu am ay noon yi. ah d'accord d'accord mën na si nekk. c'est-à-dire que ce discours là qu'il il était un, farouche opposant mais cette fois-ci il est parti il n'est pas partisan mais il est euh, un en complémentarité avec Macky parce que ñoom ñaar ñoo xaw a ànd. d'où maintenant nag que ce discours là ne devrait pas être aussi catégorique mm-hmm. mais ce avec le contexte d'où nous nous trouvons fi ñu toll nii. ak li ñuy faral di évoquer ak li xew ci biir réew mi wax dëgg fa yàlla ku am sa xel di analyser wala ngay déglu xam nga ne Idriss Seck démb yedd na Macky Sall. mais mais indirectement. bëgg wax na ko lim ko bëgg a wax. mais indirectement xam nga moo tax ma wax loolu Ahmed. parce que daf ma ne ñoom ñaar allié lañ. ma ne ko il est obligé que mu yedd ko de façon indirecte. waaw waaw d'accord ba léegi ba léegi waxtaan bi mu am boo ko xoolee bu baax da ngay xam que ni. indirectement da ko da ko sax digal da ko sax conseillé. exactement ñaanal ko pare conseillé ko. voilà liggéey nga liggéey bu rafet sa vision. est-ce que ci ay waxam tam Babacar du moom ëllëgëm la doon la jéem a defaraale pour ñu ne waxoon na ko. non mais tout est xam nga tey ñoom ñaar seen allié allié de de deux partis politiques foofu maanaam moom ci ñorom moom ku ko xam ne dara luy ñagas mhm. dana dana jénd ne moo ne ba mu ñëwee Thiès ne naa ko wax dëgg yàlla moo ma dégluwul c'est ça boo déggee moo tax ma nag sa kàddu gi exactement li mu bëgg a wax mooy kat Idrissa Seck non seulement def na discours ëllëg kuy xaajaloo mhm. pour lu mënti xew kenn du ko sikk mhm. mais def na également discours boo xam ne mën na bañ a xaajaloo te ëllëg également aussi buy ànd di dem mën na gën a dafa ngarale maanaam moom dafa dafa dafa xam euh, nu ko olof Ndiaye di waxee jonju yaramam ba mu set fi mu toll nii ndax ëllëg bu nekkee safaan am na dinañ ne waxoon nañ ko ndax vidéo var am na bu nekkee safaan amul it dinañ na waxoon na ko il est très en plus euh, d'après son discours tu sens une personne toujours assoiffée de pouvoir Idrissa Seck maanaam. non mais comme mooy président bi. waaw en fait tu, tu sens une personne. comme mooy président bi c'est ce qu'il a fait de pouvoir en fait Idrissa Seck daal mu l'a entendu. <laughs> je dirais pas président Macky Sall. non non la réponse de Macky Sall la réponse de Macky Sall. waaye tamit. c'est que nan la ko ko waxee sax. non mais dama ne. ce n'est pas pris pris. maanaam merci merci yow mi jekku kàddu borom jé. <laughs> am na nu ko am na nu ko waxee xaw fu muy nekk mooy man man li ma gis. c'est très clair dinaa wër phrase <laughs> man de pour te dire vrai sincèrement parlant man de j'ai été déçu. par lui très très déçu même. très déçu même. raayal. dans la vie nit mënoo nekk tey ñuul suba nga nekk. mais mais Babacar Babacar. dafa dafa position ah. ñu jàpp ñëpp jàpp. ñëpp jàpp loolu ah, comme li ñuy ñenn. waaw ah. c'est-à-dire pas être d'accord avec mm. ci sa politique. ba rejoindre la ba nekk sa allié looloo contradictoire wëlbati ko waat bëgg ànd ak opposition bi ci liñ lay wax ma la koy wax. moo tax may la mëntu ne. mais président Idriss Seck mënu fi taxaw fii. moo indi xaajaloo Mimi Touré ak ak ak Macky Sall. non parce qu'elle elle n'était pas d'accord. non non d'après yow li deful président. d'après li nga dégg. <laughs> waaw <laughs> xam nga lan la ah non rien rien ne nous taxawaay bi lay am. mais amee li nga wax sax looloo a toujours lu ci mën a am non lu ci mën a am moom man man wax naa ko fii mu leer man fii laa ko waxee woon man waxee woon naa ko fii de non man fii laa ko waxee woon de man dama ne Aminata Touré ci jëm boppam ba nga demee ba nit li ngay ànd ak moom doyatul la léppam da nga ko war a suur gedd ko teg waruloon xaar ci assemblée nationale ñu naan dañuy yëkkati ndombal tànkam di ko yëkkati président Macky Sall muy doxalee neexatul la demal mais nu la dara di ñàkk neexee après nga ne da fay toog loolu mënul nekk non non kenn mënul nekk mënul xam nga moo tax wax na moo tax wax loolu ci Idrissa Seck mhm. mooy que ne mënuma comprendre Idrissa Seck lan moo changé ci diggante ba Idrissa Seck ne euh, lu dul président Macky léegi gis-gisam romb na jam ñaajo te gis-gisam mosa léegi lu tax mënoo ko ko woon nangu très bien léegi tey léegi nga bëgg ko nangul ne ko discours romb na jam ñaajo pourquoi parce parce que am na fu la peeg moom laa la yor parce que am na fu la peeg looloo tax may la man nag man déception laa ci nga am na dëkk ji dëkk gumba boo fa jaayee seetu rek da ngay <laughs> loolu moo fi am. waaw boo tasee gumba bu am fit ba muy ay sa jaam nag. boo ko jaayee <laughs> seetu sax boo ko jaayee seetu sax doo lamb de. non si dafa lambale doo lamb si lamb Sénégal mi ni muy doxee. bu oh, ba koy jaay seetu sax doo lamb. bàyyi ko mu yeggale oustaz si lu waay télé di télé di télé wax. ak loo bañ prési prési prési prési. non prési kenn na koo bañ. non non kàddu bi ma àbb sànq. waaw bàyyi ko ba mu pare bi nga àbb bu ko àbb ay waxu bañ xam nga dinaa ko wax feeñ mais a feeñal déedéet sa ring bu wax ko kon comme que yaa ngi ko ko ma yedd waxu bañ googu tam moom laay wax moom laa koy wax ba léegi bàyyi ko d'accord nga wala ko mu daaneel d'accord ku nekkul mënoo ko waaw kon léegi ah, voilà dane ko hmm. dane ku nekk ak li la ñor <laughs> donc gis nga Macky Sall kuy wër daanaka. loolu la Ahmed dana ko merci pour votre temps oral. Macky Ahmed. déedéet yow mënu ko wax de il faut nga rectifier wu doo mën a wax. déedéet. il faut nga rectifier dañuy dem waay temps bi. mais bu fekkee d' accord lu tax muy rectifier. non mais lu tax d' accord lu tax rectifier. moom mën naa mën a toog ne kenn du rectifier li nga wax moom du demewul noonu moom gëmul noonu wax ma loolu de dama man li mu wax man d' accord naa mais dama ne loolu moo ab président nit ñi toog muy wax ay waxu bañ ak yooyu lu lan. mais bu fekkee loolu yàlla mi nga xamante ne moom bi gis-gisam bi moo baaxul. mais bàyyi ko gis-gisam yow nga wax sa gis-gis boobu baaxul maanaam gis gis boobu nga wax noonu maanaam yàlla mi ñu bind sax dama ne da ngay déglu da ngay déglu maanaam ma ne gis gis bi nga wax noonu gis gis boobu baaxul baaxul un président de tous les Sénégalais c'est pour tous les Sénégalais. mais quand même am nañu nanguwul ci doxalinam. merci beaucoup loolu la bëgg a wax. très bien loolu kay mooy wax. mais ay ah, d'accord léegi tëjee ñu dem si ñaareel. waaye si yàlla mi ngi bind sax. waaye am na ñoo xam ne bëgguñu ko. dëgg la dëgg ko. loolu amul dañ koo xamul ko suuf dañ koo xamul. dañuy déglu rek dañ koo xamul. loolu ñàkk a xamul. non weerante waay. non weerante dañuy waxtaan waaw tëjee nañ ñaar kay mooy mën a ne soit nga nee ak nit ñi wala doo nee ak nit ñi ayca Mouhamed donc ñu dem Cour des comptes